dikkati naa Coupe la 2021 l'enquête quotidien moom la xëyee ni ki tey nañu ànd mooloondoo 2021 ndax 2022 gii ñu mënta am yaakaar yéeni kaay bi ne 2021 lum ñu wanul amul ba ca gën a doy waar mooy wopp ndax wopp moom kenn mënta dëkk ak moom te 2021 moom la ñu may ba mu doy sëkk Sud Quotidien ne wopp metti na de waaye xiif lekkit dara dàqu ko te 2021 bii mayuñu ko xiif nañu ci at wii dund ci jahannama góorgóorlu góorgóorlu na ba fa faatu ñàkk tongal ci at wi si waat na tongalaat nu ci at wii dem ak dikk ñu am tey jafe-jafe ndax grève ba mu tongal nu ci at wii yoon jafe-jafe am ca tongal nu ci at wii ay émeute am ci réew mi fitna loolu yi tongal nu ay bés ci at wii sa jikko moom 2021 tribune yéene kaay ne ko bum nu topp 2022 2022 kay tex-tex ree la ñu bëgg mbégte la ñu bëgg ci at wii waaye tam transparence la ñu bëgg ci at wii yéene kaayub dee média wi ne la ñu dund 2021 ci coono ci stress ci at woo xam ni maar day taali ci naqareem doy na sëkk na fi yam moo taxe tribune xamal ma ne moom président Macky Sall day la ñuy xaar ci discours am moo war a delloo sil yaakaar nag ci dënnuk askan wi xamal leen ni bu nu mereet mën nañu reetaan yéen kaay bi dee média bi ne du gaaw de juróomi fan ci janvier bii ñuy dëgmal ñii an mbalit mi fas nañu yéen dem ci gréew ñaar fukki milliards la ñuy sàkku nguur gi jox leen ko direct news daal dina ma 2022 xeeñagul neex ndax na compte yu Senelec itoog saisir na ko te boo maytul nag Sénégal tàbbi ci lëndëm goo xam ni maar day taali coow laa nga tàmbalee ci 2010 gannaaw ba nga xam ni Senelec jébbal na itoog lu baaxul yàq seeni machine moom président Macky Sall jamono boobu waxoon na ca ngir nag ñu waxtaan ci seen biir boobu ba tey France daal di xidéem ci décembre 2021 bii la itoog porté plainte ci tribunal ba nekk ca Paris ñu jox ko dëgg moom itoog ni ci compte Sénélec yi daal di téye moo ne day Dakar Times ma may xamal ne Sénélec daal mojj seenug liggéey ci at wii amut lenn luñ ciy wax waraa sax ma ngay rafetlu liggéeyu Sénélec l'exclusive yéene kaay ne ma déet buñ ko rafetloo rafetlu nan loo xam ne ma ngay sukuraat Sénélec ca boppam ma ngay sukuraat juróom-ñetti milliards yu teg la ñu sësir ci comptam ay fournisseur am am jafe-jafe jot seeni i koppar fii ñu toll nag mbir mi fa muy mujjee mooy ñun ñoo koy dund ndax Senelec dina tàmbali coupure goo xam ne du ñu xam kañ lay teer yi 24 heures yéen kaay ne ma fa ñu teereeg mbakki yu fay maa la koy xamal ci coow la ñu ne dafa dox digganteem ak ña dëkk ca cité Touba résidence 24 heures ne ma mbakki yu fay weddi ko xam xamle na ni mësuñoo tëj ay kontam tabba mbakki yu fay ne danaa porte ji plainte de kalaame ñi nga xam ne ñoo ma sosal lii réew mi quotidien daal di jox kàddu Bougar Sarr Bougar ma fa bindoon téere ba am ca président Macky Sall ñoo la ko ñaan rek ñetteel bi mandat dañ koy bañ ci réew mi jëlal exemple ci Abdoulaye Wade roy ci moom Daaro Wade njaag Fara Wade njaag lu ko sénégalais yi bëgg-bëgg keroog ba mu nee day def ñetteel bi mandat fitna lañ ko indil tongtongal ko ci réew mi wan ko jaxannama Abdoulaye Wade daal di reculer président Macky Sall bugar ne ko reculer ndax lu ñu mayul Abdoulaye Wade nag ñu la ko may yow ga koy def ci réew mi réew mii di Sénégal vox populi daal di may xamal ne fii la ñu recalé yenn ci liste Bougane Gueye Dany àddu ci yéenekaay bi xam leen ni recalé nañu ay listam ngir ngir wil leer na waaye nag fii ci ndakaaru kenn mënu fee wax yi la élection te doo wax gëm sa bopp moom bugaan ne lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ci rejet am nañu ko waaye ñetti téeméer ci commune taxaw nañ fa ci réew mi yëpp te am nañ fa ay candidat bugaan ne kale nañ ma ngir wil bu ndakaaru dëgg la waaye nag ndakaaru jal joob gi maa fi candidat ca Mermoz Sacré-Cœur Bamba faal moo fi candidat ca Médina Tamsir Soxna ca Sicap Gueye l'original ca Parcelles Mohamed Gueye ca Wakaam Badara Kebe ca Grand Yoff Yafatou Coulibaly ca Patte d'Oie Biram Ndong ca Grand Dakar docteur Djibril Silla ca Plateau Pape Sow ca Hann Bel-Air professeur Massamba Diouf ca Yoff bugaan ne delloo sil yaakaar yu ma taxawal kenn mënu koo téye booba réew mi ko dañuy xamal ma ne ñaari xale yu jigéen dañoo xeex ba gaañante gaañante yu metti ndax politique cey politique bii tribune yéen kaay daal di may xamal ne Ousmane Sonko day xaalisu Casamance bu mu moomal boppam la bëgg l'exclusive ne ma Adama fay defante gaag moom masta jeex te jegewu ko sax ka jiite woon defar sa gox ca Rufisque Est daal dina koy wor bàyyi boobu le liste daal di gàddaay Adama Faye ma ngay wër ku mu def candidat Rufisque Est Sud Quotidien ne ma waxtu woowu day Omar Gueye ma ngay xeex ak askanam ca Sàngalkam coowal suuf nag moo leen boole diggante Omar Gueye la ay producteur ak askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ca Sàngalkam gis nga réew mi yaa ah, ku wax lépp vox populi daal di may xamal ne lu ñu wax te waxuñu ci wàllu location ak seeraayam waxuñu ña nga xam ni ñooy borom kër yak agence ya xam leen ni nguur gi moo ci bëgg fasal boppam doose ak yaggaayu askan wi rek waaye lay dogal dëgg jëluñu ko ci coow li buñ ko defoon jeex na jël dogal ngir askan wi tàccu la xam ne lii nga bëgg saafarawul mbir mi de agence yi ak borom kër yi ne bagage ñu tabaxé kër sa bu ñu xëyee muy gën di yokku té sa bu yokku location gi yokku té nguur gi xamna ni mi ngi yokku muñu lolu bëgg nak taxawal prix location bi mënta ne gouvernement gi dañoo def tax boole ci nak lu ñoo wax té déggu ñu jambat gi bëgg nak né tay tay dañuy loxo bailleur yi bailleur yi dañoo lank duñ ko nangu tam nañu leen tuumal leen ñom bailleur yi waye nañu xamné ñom ñoy wax dé location du gaaw wañé ku ci réew mi ndax nguur gi moko fasul yéene def té jëlu ci ay pexé ki dogal libération yéene ma pexé Fatima Fati ñaawna borom këram la fekk muy nelaw mu dóor ko ay kuur ci bopp ba maar day taali mu wuy ji boroomam yéenekaay bi ne ma Omar Gueye dafa feebaroon feebar nag ba maar day taali ñàkk kattan néew doole ca la soxna si profitoo nag dem ca waañ ba jël fa kuuru roofam fekk fa muy tëdd mu dóor ko benn moo ne day gannaaw door wu njëkk ba jëkkër ji saraxu na ko de ne ko baal ma bu mu ñaar Fatima Faati daal di dóoraat weneenu kuur loolee moo bar barzàq jëkkër ja Omar Gueye Sud Quotidien ne ma bu leen fàtte ni suba le drapeau El Hadji Mouhamadoul Mansour Mbaye diggante Balla Gaye ak Bombardier leen ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm di leen ñaanal atum bu ànd ak jàmm ak bànneex. waaw ci dellu si euh, ñu ngi koy wax léegi ci atum 2022 tribune moom di wax ci 2022 21 euh, année éprouvante boo xamee ni euh, coono stress mhm. moo fi nekkoon 2022 nag li ñu ciy namm mooy ay reetaan waaye tamit mbégte waaye transparence noonu la ko yéene kaay bi xëyee fësal Euh, wax na tamit ci mbirum euh, Ousmane Sonko mi nga xam ne dafa sàkku ñu taxal lu ñu wooyee monnaie locale fële ca Casamance ci wàllu 2021 2022 Walf Quotidien ci la fësal wàllug euh, rétro mooy démb waaye mhm. tamit perspective 2022 ci yooyu lay coow yi nga xamee ne am na lii nag moom mooy saafara bi lii moom mooy jàngoro bi loolu la ko yéenekaay bi xëyee fësal wax na ci événement wu mars yi wàllug reddition des comptes ñi nga xam ne ba léegi seen loxo dafa taq ci wàllu ak luubal Euh, Cheikh Mbow ci COSYDEP euh, di wax nii euh, faw ñu xool rapidement li nga xam ne war nañ ko liggéey ci Coupe d'Afrique des Nations bi nag Cissé nag ñaara mën a nekk nga indi coupe bi wala nga jël bunt bi maanaam kon génn yéenekaay bi di Vox Populi moom daal si na ci problème yi nga xam ni mu ngi ci biir secteur bu immobilier maanaam mbirum location yooyu bailleurs yi agence ñoom ñëpp ñu ngi joxoñ baaram tuuma nguur gi ni li ngay def populisme la da ngay bu wootee wallu ne ni mbir mi du yow ne ni waaye waaye euh, la ngay wax gëmoo ko loolu la bailleurs yi ak agence yi euh, ci wàllug euh, ñii di nguur gi problème waaye loyer nag du mbirum ay décision yoo xam ne da koy jël ngir neex askan bi yëpp waaye da ngay jël décision boo xamee ne yu yenn maanaa lay doon Bougane Gueye Dany ci Vox Populi ba léegi gannaaw bi ñu ko écarté ci Euh, lii di mairie bu euh, Dakar euh, jële nañ ma ci boppu mairie bi wala ñu bëgg ma bañ a bokk ci mairie bu Dakar waaye teewul donte nekkuma ci biir xeex bi ci Dakar waaye maa ngi ci guerre bi ci gëm sa bopp moom la ko xëy fësal yéenekaay bi di sud euh, dellu si tamit ci euh, justice bi nga xamee ni dafa am ay jafe-jafe inondation yi dellu si ay grève rawatina si wàllu transport góorgóorlu moom 2021 moom euh, soxlawu ci dara bëggatu ci dara mm, loolu la Sud Quotidien xëy fësal suuf sa moom di wax ci wàllug koo xamee ni moom dafa fàtt kiyam borom këram fële ca Ouest Foire Euh, ne nag euh, ñi kilifa diine mu ngi ci coow li euh, kan la ak nan la demee xamuñu ko source a daal xam le tamit ci leneen muy ci lu soxal mbirum Senelec ak scandale fuel frelaté boobu lu tolloog fukk ak juróom-ñaari groupe diesel ak ñeenti centrale de production la boobu la essence bu bon yàq ci yooyu la jamono itoog nag tëj lu tolloog juróom-ñeenti milliards ci suñu koppar lii di compte yu senelek Euh, muy waxtaan boo xamee ni euh, seen biir lay doon daal waaye li wóor mooy ni tey li ñuy xaar ci l'observateur 2022 euh, jot na nag loolu na ko yéenekaay bi xëyee fësal jot na ñu mën a jël lii di Coupe d'Afrique des Nations jot na ñu améliorer système de santé bi jot na ñu mën a téye suñu kom téye suñu économie maîtriser ko loola yépp nag ñu ngi xaar kàddu yi tukkee ci président de la République Macky Sall yéenekaay bi di l'info moom benn candidat la fësal muy Amadou Ba eh, ci wàllug xeex bi ci biir Benno Bokk Yaakaar nee na leen xeex bi ci suñu biir la ngeen war a xeex mooy dem leen attaqué ñii di opposition bi day fekk opposition bi tamit taxaw di xaar nga attaqué ko Libération moom wax ci wàllug eh, li xewoon West Foire ak benn enquête boo xam ne ubbi nañ ko ci ci koo xam daal dafa eh, faat borom këram lii tamit lu jar a wax la muy CUNET. fële euh, les échos di xam ne ni amat ah, bu bees la ñooñu yàgg nañ leen ci tudd waaye ay fukki fukki doomu réewum Sénégal jamono ji nag ñu ngi ci ay jafe-jafe ca Côte d'Ivoire te kenn indiwu ko lu dul CUNET bi nga xamee ni ay euh, sénégalais ñoo ko euh, dirigé benn réseau la boo xam ne daal dañ jël ay sénégalais jeunes diplômés di leen wax naan mën nañ la fay 000, euh, 000, euh, ni ko am nga jour ñu ne la temps pour ma dugal sa dossier et cetera ba ñu bari fiñ ñu ngi ci ay mhm. euh, yenn ci ay Côte d'Ivoire ak consulat bi ñoo di situation mi nga xamee ni ci la ñu nekk dañuy jeexal euh, mambay ci lu jëm ci wàllu lamb euh, ndax euh, ni kii ëllëg lay doon muy le premier janvier maam combat bu rëy boo xam ne daal ñu koy xaar ci ci ci réew mi boobu le combat nag je pense su lamb wax na ci bala gay 2 Bombardier samedi la waaw revanche ou confirmation l'heure de vérité tey mu noonu la ko yéenekaay bi euh, waxee euh, face cachée des deux lutteurs ku ci nekk nag. Euh, waaw loolu la ñu wax daal nee na daal Balla Gaye moom ñu ngi ko prier mu ñëw 16h45. Mhm. Bombardier 17h maanaam war nañ fa teew gason nag nee na junni lañ fay teg ci ay forces de l'ordre ndegam dina mën a sécuriser wàllu làmb ji mën mhm. nañoo àgg ci làmb joo xam ne daal nañu bëre ku mën sa moroom duma. Euh, te mu jeex léegi nag ñaara fi nekk parce que damaa gis waa Mbour fee gis waa Géejawaay fii léegi nag fan la. waaw Mbour Mansour Diop. Eh, Mansour Diop nga guddi guddi nee na guddi guddi. Papa ah guddi guddi Guédiawaye rek. voilà léegi nag euh, je pense que. mais alors comme ni koy defee ca Dakar Arena. état bi nekkoon ban état. mais Balla xam nga ne mu nekk. Ah, ñëwoon ngeen du ne mukk benn moroomam. xoolal soos soosaat. xoolal dañuy soos soosaat. Ah, soos soosaat yow la wax ko dama ne. Ah. buñ ñu daanee c'est parce que état de forme Balla Gaye. saf ñaari yoon. non du daf saf ñaari yoon. yoo xam waaw. moom la la Mansour wax. la junj noonu Dakar du saf ñaari yoon. waaw soos déedéet moom soosas man ma ne ko Dakar du saf ñaari yoon. Ah, la mu la mu la mu safoo. dootu ko safaat yow jotuma ma ci sax. <laughs> alors ba ci ba ci altine a ñëw xool ma. baax na kon ci laay dina ko yaatal. waaye bu subaa wala altine. li wóor mooy dinañ xam diggante Mansour Diop mu Mbour. Eh. ak Mamadou Fofana bu Géejawaay waaw. Euh, Mambay mi nga xam ne ma nga yoonu Rufisque kon Dakar Arena di di nan lay arbitré mbir bi du mel ni sama mbër la dama ko bàkk sa waaja nu mu tuddati woon ay ca jaajëf bi daañ jaaj turé daf ñuy fekk se kon nag nu mën fa fan Sénégal la bokk